mbokk yi barab bi ñu taxaw mooy barab bi nga xam ne fi la soxna si tedd si du dalloo soxna jaaru Bousso di wéyjuru Cheikhul Khadim ak euh, borom sàmm barab bi nag di barab boo xamee ne ni booleem waa ko Sëñ Tuubaa yi noote nañ ko ndax ngëneel ñi fi nekk ci pàttali Porokhane mu ngi nekk ci région de Kaolack ci département bu Nioro digganteem ak Nioro toll ci juróom-ñaari kilomètres ñoro mom rek histoire la ci yoonu ci l'islam way histoire bu rëy la ci yoonu ci Sénégal ngir ay kangam ñoo fi nekkon man nañoo wax ne bolem ñi ngan ko diine ji ci Sénégal ñepp mas fii leen daje woon ci ñoro ngir di fi eh, ngir ngir ngir yëkëti baatub l'islam waye tamit ngir eh, yëkëti kaddu la ilaha illallah lolu mo sabab Mamor Anta ñew fi fii euh eh, paroxane ndax ñaare daara daan sori ab dëkk Poroxa euh, moo doon ville bi Poroxaan nekk village bi nga xam ne ni fi la Mame Mor Anta nekkoon ak njabootam ak daara ji dafi fi loolu moo waral soxna si tëdd fii ndax euh, fi la liggéeyee liggéey bu kawee kawee boo xam ne ni adduna sëpp dañ koy ñu ciy bind te mënuñu koo jeexal loolu nag moo waral tey ñu ñëw fi tey ngir nemmeeku si barab bi ak ziyaar yi ak émotion yi nga xam ne ni moo fi am ndax nit ñi ku fi ñëw doo dugge sago waaye li naaj wi tàng tàng ñu ngi ci biir tamit das ay rang ngir lan bëgg ñëw si ak dottiku ci xéwal yi nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci barab bi. waaw moo tax ma ne jigéen njëmiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi soxna jaara mooy yaay xaadimul xaadim bigal ne yàlla may karim yiwum wa jaara laa yare jeex jàngal na xërnu bi ko kii xaroon na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du leen jafe moo tax ñëpp am mbuuti kafe jaara ma jaara xërnu be kii moo rafetub juddu moo des gor temoo ami may barkel na sili cosaan maam jaara tulaay kii moo rafet ba noppi rafet jikko man bapam di togg lu doy kii du sàkk xëje seen maam jaaratu laay di soxla jaar programme. Euh, bi fi njëkk a ñëw maa ngi daloon booba sëñ sëñ Moustapha Boussirou moo fi nekk foofa laa daloon ndax sama sama sama rakk papa moo nekkoon jëwriñ ñu ko wax Cheikh mu dëkkoon dëkk bu ñuy wax Daaru Lo laa fi doon fekk booba sëñ Mountakha mi ngi nekk ci këram gi boobu mooy wax waa Hizbut Tarqiyyah moo leen yor foofu la ñu daan dal ci kër gi wax yàgg na. foofu fa la fi ñëw waaye boobu léegi laa fi gën waaye daal xam naa ne boobu ni ma gisee dëkk bi ak ni ma gisee tey jii am na topp bu wér a wér a wér a wér waaw ñu ngi ñaan nag topp gi moom yàlla jëm kanam ñoo ngi Porokhane ci màggal ah, di di di di ñuy siyaare soxna soxna soxna su baax su màgg fii jàmbaar jàmbaar ji nga xam ne royukaay la muy maam jaaratullaahi mariama di ñaan nag ci barkeb sëñ Muntaxa di ko ñaan ci sunu borom sëñ Muntaxa yàgg fa Macky bu fi yàggee rek ñu baax ñun daal amul yenn soxla wala yenn itte bu dul ñaan suñ mën taxaa yàgg fi rek moom daal na fi yàgg rek Macky bis la boo xamee daal xam naa ne ku fi ñëwut ba egg si mu ne su la waaye kuy wër yàlla wala ngay wër yonentam wala ngay wër Serigne Touba wala ngay wër soxna soo xam ne yàlla fay na ko boo fi agsee kenn du la ko wax yaa ko yëgal sa bopp. waa Assane Diop mu xadimaatul xidma bu diaspora nekk ci bitim réew Assane waaw waaw ñun nag sunu taxawaay ci Porokhane mooy day liggéey bu jëm ci Soxna Jaara euh, mu soso woon ci sunu jàmbaar ji Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha mu Cheikh Mamadou Bassir mi nga xam moo njëkk a nekk jëwriñu Soxna Jaara yàlla daa dogal bi muy taxawal liggéeyu Soxna Jaara mu xalaatoon ci xalaat boo xam ne ba tey jii mën naa ne loolu moo yóbbu liggéey bi fépp li Cheikh Mamadou Mountakha di wax naan mu Moustapha dafa indi xalaat bi rek ngeen gàttandu ndax xalaat boobu mi ngi tàmbale woon ci Euh, soxna jaara bëgg gi ko murid yi bëgg taalibe yi bëgg ko damay wax sax ko dub jullit ba moo taxoon mu xalaatoon ne bëgg googu dey ku sañoon am doom ju jigéen tudde ko soxna jaara yóbbul ko ko bu fi newoon mu yaral la ko jàngalal la ko yàlla dogal nag soxna jaara euh, comme yàlla dogal nekku fi waaye nag jàmbaar yu euh, yu mat jëwriñ nekk ñi ngi fi nee na ci loolu la xalaatee ay turandoo yu jigéen bi ko xalaatee mu xalaat ne kon na tabax daara yi maam jaara joo xam day taxawee jëmmi soxna jaara ba kuñ tuddee maam jaara ñu indi ko fii ko fi indee mu yaral mu yaral ñu yar ko jàngal ko def ci yom diine lislaam sel sell ba nga xam ne lam doon séntu ci turandoom te jooju loolu am na ko fii ci daara ji looloo sabab moo taxawal daara ji ngir kuñ tëddee maam jaara ñu indi ko fii maanaam daara ji taxaw jëmmi soxna jaara waaw foofu mooy mooy mooy li liñ tàmbalee ci liggéey waaw. waa liggéey bi moom ginnaaw loolu ni koy liggéeyee mooy euh, Cheikh Moussa bi mu taxawalee daara ji euh, dafa am loo xam moom la ko booleel dafa taxawal daara ji ba noppi euh, taxawal maanaam résidence man jaar bii ba kenn ku ne xam na li dala ci Cheikh Modou Moussa ba ci Cheikh Modou kenn ku ci ne am na fi wàccuwaay wax boo ñëwee day xam ne fii mooy résidence bu doomi seexul xadim jooju mu dolli ci tamit na képp koo xam bëgg ngaa liggéeyal soxna jaara te sab liggéey di yegg mu taxawal carte woo xam ne mooy carte soxna jaar yi ñu di ko wecci yàlla dogal carte yooyu tey jii euh, ci wéyal xalaat yooyu seex Muntaxa di wax ci la sëñ Isaaxa mi nga xam ne moo fi jëwriñ jëwriñu maam jaara di jóg di dem ci jaspora bi euh, ñoo ngi koy siyaare yàlla dogal bu ñëwee nag bitim réew ñëw ba Espagne ñuy ànd moom ci liggéey bi ci la xalaatoon ne kat Euh, kon dawale suñu xalaat ci junni maam jaara ak nangam yi Cheikh Moustapha bëggoon ci daara jot na loola nag lay tax ñu mën ko loolu day tàbbi ci économie bi muy dund bi ba moo taxoon mu mu xalaat prénance muy ndey daara képp ku mën a jël am maam jaara nga jël ko maam jaara bu ci ne ñetti junni la ci weer wi waaw léegi loolu mu buñ ko waxee waa Europe moom ñoom dañ ko sasoo woon sax un euro nga xam ne weer wu ne trente euro lay doon ba yàlla dogal na liggéey boobu yaatu na ba fi mu toll ni réew yu bari ñu ngi ciy ñu ngi ciy tàmbali di ci jël tey dund daara ji buñ ko waxee prénance bi maanaam tey buñ toon xayma daayira yi am ci daayira yi maam jaare yi egg na ci lu mat mille daayira ñetti daayira maam ñetti junni daayira moo tax mu ne woon kon benn daayira bu ci ne bu jëloon benn maam jaara euh, yor ab dundam kon yéenay Seex Musaa jooju danañ ci yegg kon tam ñoo ngi siyaare sëñ Isaaxa di siyaare nag mboolem waa waa waa diaspora bi yëpp Baye Fall yi maam jaare yi ak soxna yi fédération yi daayira yi di ñaan nag ñu teew koy déwén di di leen jaajëfal nag yéen ñi nga xam ne yéenay taxawu liggéey bi sëñ Ousseynou Ngoye ñi moom xamante nañ lu yàgg ci liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma bi di jumaay Cheikhul Khadim bi ci yaatal ndax ñoo tam ñoo nekkal daayira bi ci wàllu bitim réew euh, li ci yokkaat nii nag te mujj muy dëkkal ñooñu ay xuraan junni daayira yu junni junni maam jaara yooyu Cheikh Moustapha bëggoon te xalaat ko euh, faaw rek nu nu nu dëkkuwaay yi yokk ba tey ku xool gis na dëkkuwaay yi ñu ngi yokk bâtiment yi ngir liggéey bi daayira yi mën a mën a maanaam maam jaar yi mën a yokk kon ñoo sëñ Ousseynou ñu ngi lay yóbbante itam ci sëñ Omar Ndiaye ak suñu jëwriñ euh, Wadane Diop ak mboolem koo xam yaa ngi rek suivre télévision bi di Touba TV di euh, ADC bii nga xam ne euh, ci diaspora bi la nekk ci yaatal liggéey bi ñoo ngi ñaan nag ñu teewe koy déwéne déwén ci barke waqti daawaay jëli si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna li si na saaraon li xidmati fala mu diyaara wasal jënnati seen mbokku taalib Assane Diop xidma Assane Mame Diarra